moo tax moom yàlla màggal na ko màggal ba Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass daf daan wax leen mu ne yàlla may na yonent bi may yoo xam ne mu ne bu yàlla bu doon rëccu mm-hmm. danañ wax ne rëccu na ko mm-hmm. waaye nag yàlla rëccu lu ko gaar mm-hmm. mu ne lu may moom mooy ki maye yonent bi mooy ki ñu may rek utale utalewu leen mm-hmm. lu may loolu rek loo gis ci pay yàlla da nga ko gis ci pay yonent bi mm-hmm. loolu tax alquran wax nañu ne annabiyyu awla bil muminina min anfusihim mm-hmm. yonent mu leen gën a ay ci seen bakkan yi kon ki la gën a ay ci sa bakkan bi bu dee taxawam sa digganteek moom da war ngaa nangu yow ne yaay dee moom mu des moom itam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nnaasi ajmain kenn du gëm ci yéen gëm gu mat lu may fekk maa ko gënal doomam gënal ko baayam gënal ko nit ñëpp Seydina Omar daal di tëb ne ko man de yaa ma gënal lépp ba mu des suma bakkan bi nekk suma ñaari wàll yi hmm. yonent bi ne ko maa ngi gën wàcc ci man alquran na nga ki nga xam ne suma bakkan bi ci loxoom la nekk sa gëm du mat mukk lu may ma gënal la sa bakkan boobu ngay wax Omar del sa ne ko maa ngi gën ci ki wàcc ci yow alquran ne yaa ma gënal suma bakkan bi léegi hmm. yonent bi ne ko al'aana yaa Omar ne ko Omar sa ngëm ngi door a mat ah comme darajaam fa yàlla noonu la tëddee ci fii ci ñun itam noonu la tëddee kon ñu ngi koy jiital ci lu nekk judóom bi itam ñu ngi ko jiital ci kaw feet yëpp moo ñu moo ñu gën a lépp waaw Seydina Ali wax na ne moo ñu gën a loon suñu alal yi gën a ñu suñu doom yi gën a ñu suñu bàyyi mu ne moo ñu gënal sax ndox mu sedd su fekkee dañoo mar kooku nag kon moo ñu gën a lépp mm-hmm. sallallahu alayhi wa mm-hmm. ñu ngi ndokkeel mboolem jullit ñëpp ñi gëm mm-hmm. ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di ñaan yàlla ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm mbooleem li ñu ragal yàlla na ko martaba yonent bi demee lépp loo xam ne itam ñu ngi ko bugg ci yow yàlla na ko martaba yonent bi indi te yàlla saxal jàmm ci senegal saxal ko ci mbindeef fi ndokkeel ñëpp ndokkeel alam islam yi lépp ndokkeel xalifa bi fii ci Medina bi ndokkeel mbooleem xulafaa yi ci senegal di leen ñaanal yàlla yàggal leen ci seen place yi te aar leen wattu leen ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu